que sitting buñ ci bëggoon amal alkati yi mu nekk journée bu metti lool ci wal fajiri ak ñi fi liggéey euh, démb ci samedi gi ñu bari dañoo tëdd ñi dañoo feebar ñi dañoo euh, noppalu tay ci dimanche ji ñu wax ne signal bi dina delsi bu 20 h jotee dañu jékki-jékki rek dékk ko noonu yow mi nga xam ne yaa ne ci bopp groupe bi est-ce que mën nga ñu leeral lan lañu def ba signal bi delsi tay ci 20 heures. waa kay di dellu di sant yàlla bu baax. Hmm. parce que effectivement c'était pas évident. Euh, di remercier population sénégalaise. Hmm.

Euh, ben si kilifa yi muy Atepa. Mhm. Pierre Goudiaby Atepa Atepa mom dem la mo wo si goudi mhm. ne ma président dina me recevoir tay à 16h30. ma ne ko mën naa ñëw mais sumay may ñëw du ñëw man rek dama ñëw ak délégation fadjri mhm. parce que c'est wal fadjri qui vient. donc euh, effectivement 16h30 rencontré nañ le président de la République. bi togué mu wax ñu mom gis-gisam ñun tamit ñu wax ko suñu xalaat suñu suñu liguey waaw bin ñu toogee nonou séance tenante le djël téléphone am Babacar Diagne président CNRA. Mhm. wo le ministre Moussa Bocar Thiam ne rétablir à 20h le signal de Walfadjri. Mhm. donc non le demain, il y a eu des bonnes volontés nga xamante ne ñoo facilité. Mhm. Euh, rencontre bi ak le président de la République bin ñu comme Nicolas ko Ndiaye di waxee rek réeroo amul ñak waxtaan mo am. donc wax nañu moom gis moy que la liberté de presse amna solo mais amna na lu ko ëpp solo lu ko ëpp solo moy le droit à la vie maanaam dund askanu Sénégal. Mhm. et que mom mënul gis mënul sétane euh, ay incitation à la violence. Mhm. limu wax tamen man mën ko dégg mais man lima japp moy wal Walfadjri mhm. ñu responsable ñu fi nek dama kay faal di wax danaka la plupart fii ay sahaba len ligéy neen collaboré neen ak sid Lamine Niass donc la plupart ni jour où jour euh, émission l'émission bien incriminé mm. Oui, Pierre Edouard Faye moi fi Oui. je pense que Pierre Edouard Faye le que c'est un journaliste chevronné. Mm -hmm. qui est responsable. donc euh, man gage boobu jox Sénégal gage bob non la le président de la République moi que la plupart des journalistes. Mm -hmm. ils ont une expérience. la plupart des journalistes à Wolf gëwuma ne une double nationalité. -hmm. donc ay sénégalais leen fond fonk Sénégal gëm Sénégal t'es nous on a. Nous ñoo gën am intérêt sax Sénégal next ci wow waaw dañu jël nak un choix choix bi moy ah, événement bu am sénégalais bu woné mécontentement nous ñu fësal ko parce que nous avons dit que le Sénégal fini c'est le mur des lamentations Le Sénégal est bu am comme ko métti Ce qu'il faut, c'est dina am dara lu mhm. Mhm. Mais si dina gif mais def la politique de l'autruche xëy ne peut pas mais on est responsable Le moom le président de la République Walfadri, va continuer à informer juste et vrai mhm. mais avec responsabilité et avec professionnalisme. d'accord alors euh, euh, ñu bari parlons, hein, bi ñu bi ñu li ñuy wax mooy euh, décision retirer licence wala suspendre signal Walfadjri le président de la république du Gué. Nous na ñu bari ñu ministre de la communication plusieurs fois mais même le président ci est-ce que nous avons lu par rapport à la prise de décision. waaw décision le président de la république il nous a dit que mm-hmm. que effectivement la coupure pour moi, si lui lui entraîner. le mhm. droit à la vie bon non mhm. coupure. mais bi ko licence daf ko donc dafa information bi ñu que information non donc le retrait de la licence moom yëgu si on se dit la vérité. Mhm. en tout cas il y a surprise la si mon mhm. waaw coupure bi mhm. mais le retrait de la licence en tant que tel c'est mon tel la pour vous dire que si se fait qu'on information en première main. Euh, on nous d'accord s'il il y a une décision donc c'est très important Sénégalais le euh, président il était d'accord sur la coupure mhm. voilà il était d'accord parce que c'est le président de tous les sénégalais et li intéressé Il dëkk bi mhm. intéressé pour nous inciter Ben faire des violences. ci violence mhm. mais euh, la coupure le retrait de licence n'est euh, nekkul ci euh, projet D'accord. alors Oustaz Assane directeur des programmes bu Walfu TV. Hmm. Euh, ñu bari bu ñu déggee ne euh, Macky Sall recevoir na waa Walfadjri li seen xel di njëkk a dem mooy mbaa du ngeen fa diggee mbaa du ngeen fa jël ay engagement hmm. est ce que am le président Macky Sall gàll ci hmm. décision am ne nañ leen delloo licence Walfadjri. jërëjëf euh, Moustapha xam naa balaa may ñëw ci question bi damay gën a ñëw ci sant. askanu Sénégal d' abord ñëpp. ndax seen taxawaayu Walfadjri gën nañ ñu confirmer ne. Hmm. ñun moomuñu Walfadjri gën nañu confirmer.